jaa ngeen jëf mbokk yi ci ànd geeg bàyyi xel geeg GCB waxtu wu nekk wuruñu di fàtte li fi mas a jaar sa Seck. président de la république kàddoom wérul lu mu la wax jaruta dóor sa doom. kàddu yi mu daan yëkkati ci président Sall muy kàddu yoo xam ni kàddu yi dëggu ci moom. kenn waru koo fàtte donte ni tey jii mburu ak soow la sa Seck. président de la république kàddoom wérul lu mu la wax jaruta dóor sa doom. lu tolloog ñetti at ci ginnaaw sa Seck ban gis-gis ak ban xar kanam la amoon ci président Sall mii muy xalamal tey. président de la république kàddoom wérul lu mu la wax. jaruta dóor sa doom lii ay kàddoom la te moom la ñu gëm waxaguñu yeneen kàddu yu tax ñu weddi ko Idrissa Seck kan mooy président Macky Sall wax nga ko dama leen a waxoon ne lii ma seen muy dem de doxagul ñu dox léegi juróom-benni at benn at des ci li ma bëgg ñaan Macky Sall mooy at mi ko dese na ci jubbanti loolu rekk a fi xaj jubbanti ci dawal ci yërmande ci nit ñi dawal ci yërmande ci opposant yi def fi lu baax loo xam ni dana rafetal màndaa bi moo fi xaj ak takki bagaasam ñaar yooyu rekk a fi xaj leneen xaju fi bu mu fi jéem dara puisque boo dee def bilan da ngay wax li ëpp solo xam nga li ëpp solo ci bilan bi mooy lan mooy li sénégalais yi jàpp mooy président de la république kàddoom wérul lu mu la wax jaruta dóor sa doom président de la république kàddoom wérul lu mu la wax jaruta dóor sa doom Idrissa Seck président de la république kàddoom wérul lu mu la wax jaruta dóor sa doom Idrissa Seck loolu dafa garaaw Idrissa Seck loolu dafa garaaw Idrissa Seck njiitu réew mi kàddoom wérul wax na ni duma ma def cinq sept ans cinq ans lay def deñ mu deñ wax na ni duma jël décret nommé sama frère def na ko donc lu mu la wax rek ñaareel bi justice nga xam ni moom ku jaaxle ci moom ngay dem ku ñu tooñ rek foofa nga yaakaar àtte même Macky Sall buñ ko tooñee amul droit yónni ay nit ñu fajal ko day dem porter la plainte offense au chef de l'État wala justice a koy fajal donc justice moomu mu nërmeel ko ba nit ñi jàpp ni justice mii kat moom da koy jëfandikoo pour xeexe ko ay adversaire am aare ko ay waa këram ay waa këram lu leen neex def dara du leen ci fekk keneen ku dul waa këram loo def ñu dal ci sa